ni ñu koy faral di defee bu ba léegi moom soxna Faat Bintou Pouye Mbacke di soxna ci Serigne Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaax jamono jii daanaka ba campagne bi dooree boobu ba léegi toogul ni ñu koy defee ci zone Ndindi zone 2 boobu ba léegi nag muy wéyal ay programme di dese ñi nga xam ne ñoo nekkee foofee jëmb na soxna si demoon fi nga xam ne nag moo di looyeen foofee askan bu bëri taxawoon di ko xaar gannaaw ba mu egsee ñu daal di koy tatagal daal di yëkkati tamit ay kàddu yoo xam ne jëmale ko ci soxna si di yàkkamti seen ab waaye itam daal di koy gaaral jafe-jafe yi nga xam ne ñu nekkee foofee moom la ñuy jànkonteel société bi jigéen a ko yor bu dul yéen dara du dox seen engagement pour développement Sénégal ñu ngi leen di ci gërëm di leen ci jaajëfal kenn amul seen fay li nga xamante ne moom moo ñu tax a jóg tey mooy waxtaan ak yéen ci suñu benn mbër boo xamante ne dafa war a jongante jongante goo xamante ne dañu bëgg mu gañe ko largement delloor ko njukkal sargal ko ne ko kontaan nañ ci sept yi nga xamante ne moom da jot a def ndax koo xamante ne mu ngi tàmbalee tabax di fondement fondement bi fu nekk nii suñu xel dal na ci dañu koy ñaanal rek mu yëkkateeg jàmm te mu jik ko tamit yéen ñi ñu ñëw tey dañu am ci yéen ci yaakaar jouru élection yi seeni voix dañ ko soxla. gannaaw loola itam soxna Faat Bintou Pouye fépp fu mu dem du fay ànd ak ak loxoy nen ndax ci ay saakoy ceeb yu takku waaye tamit enveloppe bu diis boo xam ne da koy jagleel jigéen ñi nga xam ne ñoo nekkee foofee ngir dimbale leen. Mm. ceeb bi mm, ko moom enveloppe bi tamit ana soxna si yéen ko moom bu ngeen jógee na ci def ay baxal. di waxtaan ak euh, ci wàllu bilan président Macky Sall di ci ñaax nit ñi di woo nit ñi di dem wër ci nit ñi euh, ba le euh, au soir du 24 février incha allah. mu mel ni soxna si yemaliku foofu ndaxte bu dee lu jëm ci wàllu financement soxna si taxaw ne dina taxawu jigéen yi nga xam ne ñoo nekk foofu ci Ndindi. bu soobee yàlla deuxième tranche bi nga xamante ne moom dañu war a génnee ci mois d' avril bi dinañ fexe ba yéen ñi seen mbootaay ngeen bokk ci incha allahu rabbi président Macky Sall ñaar yii rek war na tax ñun waanindi ñu taxawu ko ba mayaat ko deuxième mandat au premier tour incha allah ñu dellu si waat fii feeti suñu victoire xool naka dañuy chargé woo pour organiser leen ba élection ba ba ba programme yi ngeen bëgg yëpp ci wàllu financement ngeen agsi ci. waaye tamit manqué wul benn yoon occasion bi ngir fàttali ki nga xam ne moom lay campagne njiitu réew mi muy bulletin bi nga xam ne moom la ñu war a tànn bu ñu eggee ci jongante par njiitu réew yi nga xam ne moom la ñu dënmal di leen rek moo di bëgg-bëggam moom soxna Fatou Binetou Pouye Mbacké muy njiitu réew mi Macky Sall amaat ñaareelu mandat waaye itam am ndam lu ci dëkk bu sell di Touba. bu ngeen demee ba fa a am photo bii di suñu candidat président Macky Sall juróomi photo ñoo fay nekk juróomi carte ñoo fay nekk waaye na ngeen xool carte ba nga xamante ne moom moo am beige marron am photo président Macky Sall ñu ñaan leen na ngeen jël enveloppe dugal ko ci te bu ngeen ko collé bu ngeen ko collé vote bi day nul dafay mel ni di coono bi ñu am yépp dafay daal di nul kenn du ko compter voix bu ngeen collé enveloppe yi loolu dañ leen di ñaan ngeen xëy def ko. seeni ay doom dem defi ko seeni dëkkandoo defi ko seen ay kollëre defi ko bu ko defee bu tàkku saanee ñun ñëpp ñu génn daal di feete victoire am loolu dañuy ñaan ci barke Serigne Touba yal nañu ko yàlla may.